Equivox ak waa Kewel gi info. voilà waaw. ngeen di waajal bés bu mag ñu ñëw fekk leen fii ci CNG ngeen doon réunion est-ce que mën ngeen ñoo revenir un petit peu euh, ci li leen fii indi. waa xam nga ren moom am nañu habitude événement yu mel nii saa yu amee muy événement bu mag euh, dañuy daje fii ci CNG sécurité bi promoteur bi manager bi ak ki nga xamante ne bi en général moo yor bi ñu toog waxtaan kenn ku ci nekk wax ne conséquences yi laa fi am wala problème yii laa fi am ñu xool nu ko résoudre ndax ku ne xam na ne samedi événement bu mag la. gala bu mag a mag la ndax mbër mi ñu boole kenn ku ci nekk fees na Iba Mar donc muñ leen dajalee nar leen a dugal arène nationale tamit il faut mu laaj ay dispositifs yoo xam ne c'est spécial comme ni ñu ko waxee ci biir réunion bi loolu la ñu ñëwoon pour waxtaan ko ci côté sécurité bi CNG bi ak organisateur bi. est-ce que euh, yéen en tant que promoteur seen côté am ngeen satisfaction. waaw bon xam nga lamb moom. tout le monde n'est pas satisfait à 100 pour cent mooy on a essayé de de de xam nga de se démerder avec les moyens du bord parce que noonu lay demee chaque jour promoteur bi day ñëw wax ne lii laa bëgg ñu defal ko ko stade bi tam comme ni ñu ko waxee léegi am na ay norme yoo xamante ni ba nëg ne ñun niñ ñu ko war a acquisition bi ñu ci war a am amaguñ ko donc on est obligé tamit lañ fa fekk rek ñuy adapté wu ak lu mel noonu mais à chaque fois dañ koy jooy di ko jooyaat arène bi vraiment am na ay changements yu ci war a def mais bon ñëw jéem rek ndax ku ne xam na Ndiaye production waxuma la moom ci boobu mais yàgg na ànd ak ay promoteurs sax di leen organiser récemment ci combat booy Niang Pape ak ak Lac de Guiers bi donc moom su fay dem du am problème seulement bi mooy événement boo xam ne dimension la bu bokkul ak yi mu daan def donc bii bu mag la il faut ñu ci une touche particulière te yaakaar naa ne jël nañ dispositif bépp bu ci war ci côté ci safu Ndiaye production parce que ñun ci saf bi lañ bokk donc dañu ñëw comme tey koo xamante ne bi ci safu Ndiaye production la bokk waxtaan nañ ñi ngi waxtaan réunion bi jeexagul xëy na ñun tamit dañu chargé ci yeneen yoo xam ne Fall daf ñu chargé ko doxi mooy tax ñuy dem nii mais Fallou mi ngi fi ak ñoom Pape Abdou Fall pour essayer de mieux faire voilà euh, ñu ngi ak Fallou également Fallou euh, ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu ak mbokku yi. waa ñu ngi lay fay bu baax a baax di leen euh, gërëm seen taxawaay ak seen teewaay ci nga xam ne ñu ngi daje fii comme ni nga ko waxee Kandji rek ñu daje woon fii ak waa police ak waa CNG ak ñi nga xam te ne ñooy organisateurs yi mooy comme Kandji président Pape du ne ci biir ak ñëpp bo ah. bon ñu doon waxtaan pour ni nga xam te ne rek noonu la fexe ba incha allahu rabbi samedi képp ku ñëw arène nationale. di nga am satisfaction bu baax a baax ci amateur képp ku ñëw arène nationale di nga am mbégte di nga kontaan ci wàllu organisation tey bépp jafe-jafe bu amateur dinañ fexe ba incha allahu rabbi amateur du ko fa am dina ñëw seeraan si ci ni mu ko ware ñibbi si ci ni mu ko ware ba pare du am benn empêchement ci biir géew bi. voilà wàllum sécurité bi euh, comme ni nga ko waxee sànq euh, lan la ñuy xaar lan ngay euh, wax amateurs yi wala supporters yi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan ci wàllum sécurité bi. waaw comme ni ko accident bi ne ci biir ni mu ko waxee rek. nee na moom avant après mhm. lépp nañ ko gérer ñoom. Mhm. kon yaakaar naa ñoom liñ ci war a wax yëpp wax nañ ko. incha allahu rabbi waxuñu arène bi mais lépp lu wër arène bi incha allahu rabbi dinañ jël matuwaay yoo xam te ni lépp loo xam ne ni mu wër rek bu neexee yàlla dinañ fa jël matuwaay yoo xam te ni def naka sudul noonu muy Pikine muy Guédiawaye muy euh, ba Odeka allah kenn du fa def loo xam te ni naka nañ fexe ba foofu yëpp na am ay jeunes yoo a solo benn jafe-jafe nga fàttali ñu billets yi pour ñi nga xamante ne bëgg nañoo jënd seen i billets billets yi ñaata la waaw billets yi tribune supporter mooy 3000 euh, kii bi euh, annexe bi cinq mille euh, loge VIP bi dix mille euh, quinze mille euh, annexe loge bi cinq mille non dix mille couverte bi mooy cinq mille annexe loge bi dix mille loge VIP quinze mille. xanaa mu répété waat ko rek bu ñuy def suñuy affiche mu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy prix bi yi. waaw prix bi yi comme ni ñu ko waxee woon rek tribune amateur moo nekk trois mille tribune bi nga xamante ni mooy. bu rouge bi mooy fi ban yi toog mooy fi comme fi ñu ko defoon ci combat la de guerre Boy Niang moom la ñu def 5000 annexe loose bi ñu def ko 10 000 loose VIP bi ñu def ko 15000. xam nañu aussi euh, lamb ji du am en direct ci benn chaîne de télé lu dul ci euh, pay per view seen affiche point yi comme yaakaar naa la ñuy dugg daal di mën a seetaan lamb ji est ce que mën nga ñëw revenir aussi ci euh, ñaata ngay débourser pour mën a seetaan loolu. waaw loolu moom yaakaar naa buzz moo ci gën a am expérience mais en tout cas bu dee fii Dakar la lu ñu wóor 1000 francs rek boo ko amee da ngay seetaan du boo duggee seen affiche point com di nga mën a seetaan comme ni mu la comme ni mu la neexee te yaakaar naa 1000 francs moom ku ne am na ko 1000 francs jàpp nañ ne ku ne war na ko mën a jënd bu dee diaspora bi nag bës moo yor prix yi moo gën a utiliser li nga xam te ne moom la fay jaar kon yaakaar naa daal incha boo demee diaspora di nga seetaan soo ñëwee Sénégal di nga seetaan ci côté yëpp incha allah rabbi te dina am facilité bu yomb te incha allah équipe bi nañ ci liggéey li nga xam nii benn jafe-jafe du te pour nit ñi mën koo seetaan.